alhamdulillahi fi sirin wal ilaanin wala abdulillahi ma lillahi min saani falhamdulillah maani la haun wala alifun wala abdu haun wa hamzun summa la maani bizalika aljamcu qad saara alkamaalu lahu farxan wa jamcan wa jamcu aljamci fi anin sala alayhi illahu alarsi mujtamicat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 di leen ci ñaanalit yàlla waaye di sàkku ci yéen it ñaan di ñaan yàlla lépp luñ ko jaamu mu néew mu bari yàlla nañu boole nangul ca matam nga ak mbaaxam nga na mu toll te bañ ñu ko nangulee ci suñu matadi gi ak manqué gi mën a tooñ gi di ko ñaanit rëcci rëcci yu ñu yëg ak yu ñu yëgut yu ñu tey ak yu ñu teyut yàlla nañu boole labal ci géeju njëgalam gu yaatu gi bi jaahi seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu del si waat ak yéen tey ci kàttanal yàlla fa yéene lay eh, biir ak yéen lu jëm ci jaamu yàlla gu màgg muy lu ñuy tuddee feetu tabaski mu mel ni ñu bari ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu ko wala topp nañu aada ba nga xamante ne jublootuñ ci sax am yàlla waaye jaamu yàlla bu nekk laa wax ëllëg lu ñuy xañ tiyaabu ba ca kanamu yàlla mooy topp aada jaamu yàlla bu ne ëllëg lu ñuy xañ tiyaabu ak jaamu ga mooy topp aada parce que am na ci loo xam ne bu ca aada xasee dugg rek dootoo ca sédd yàlla cër mais aada ba nga cay bàyyi xel kon mu mel jaamu yàlla bu màgg bu sell bu yiw bu yaakaaru bii nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci suñu maam Ibrahim sunna la ci képp koo xam ne àttan nga ko kon duwul farata ci yow mais sunna la te lu muy doon doon doon sunna soo xamante ne it war nañ ko mën a def mais ci ku ko war a def kan lakk ko mën kon su ko defee sunna la soo xamante ne daal ñu ngi ko jëlee ci suñu maam Ibrahim suñ la ko doon tënkal ci gàtt daal ak tënk ju gàtt gàtt ak ju fasaxa nga mën ko dégg yàlla mooy examen jaamam di xool fan la jaam bi ci moom ibrahim alayhi salaam yenent la xaritu yàlla la ku baax la ku sell la ku yiw la mursal la ba pare doon nabi yàlla nag di teste ndax xarit gi dëgg la wala du dëgg yàlla jël li gën riis jël li ibrahima gën a fonk lum mu gën a bëgg ci àddunaam ne ko jël ko nga jégeloo ko mooy jël ko nga jaamoo ma ko muy lan mu rey doomam kon su ko defee suñu kilifa gu baax da koy tënk ci ñett muy oustaz Hadi dafay wax ma ne tabaski daal firiwul lu dul ñett mooy jigéen ju déggal boroom këram ak doom ju nangul baayam ak boroom kër gu jibook boromam lii rek mooy tabaski Ibrahim bu ko yàlla digalee lim ko diggal tegul ca baat da koo def bu mu waxee soxna si soxna si da ko topp ci lu mu bëgg bu mu waxee doom ji doom ji dafa topp baay ji ci la baay ji bëgg kon su ko defee lii dëgg dëgg dëgg daal ci gàttal ak tënk pour mu fasaxa nga mën ko dégg mooy tabaski ngir sàkkoo jége lu yàlla ñun nag nuñ koy defee léegi aada topp nañu pookare topp ñu ak leneen ak leneen ba nga xamante ne li yàlla bëggoon ñu jëlee ko ci sax jëlee wutuñ ko ci muy lan muy ragal yàlla ndax jaamu yàlla gu nekk rek am na lu yàlla bëgg nga góobee ko ci ta mooy ragal yàlla lu mel ni aj màkka lu mel ni natt asaka lu mel ni julli juróom demet lu mel ni weeru koor demet lu mel ni tëbaski benn bu ci nekk ci yii dafa am lu yàlla bëgg nga jëlee ko ca te muy ragal yàlla su fekkente ne nag yii la yeneen yaa ngi koy def te amul amee woo ci ragal yàlla kon jaratu nga koy def lu mel ni tëbaski yàlla ñu koy déclaré ci benn aaya euh, lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàpp bi ngeen ni yàpp ci bis ba ak deret ju bëri ji ngeen ni tuur yàlla nee na dara ñoruma ca dara safuma lenn rek ma ci intéressé mooy yëg gi ngeen ciy yëgee yàlla ak yegg gi ngeen ciy yëgee yàlla ak am gi ngeen ciy amee yàlla kon su ko defee loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mboolem kuy jullit mboolem kuy jullit rek ñu ngi la koy bàyyiloo xel euh, sunna la soo xamante ne daal war na ci képp ku ko attan ku ko attan suñu la ko doon fiiril maana muy man muy yow muy keneen nga am xaalis boo xam ne ren ba déwén doo ci am soxla tabaski bu ñëwee dalay war waaye nag senegal nu ñu baaxoo mooy tey boo amul jabar alal boo mën a am lu mu bari bari bari amoo jabar rek yow tabaski du la war loolu aadala la yow boo amee jabar donte ne amoo dépasse suba sax tabaski dalay war loolu aada la te sariya ñëwut pour sonal mbindeef yi waaw yu yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr yàlla dafa bëgg ci yéen ak jàppandal waaye bëggul ci yéen ak jafe-jafe kon su ko defee mbooleem xeetu jaamu yàlla laa wax boo xam ne yaa ngi koy def di ca jëlee jafe ak ay gàllankoor bàyyil xel ne jaamootoo yàlla wala amee woo ca yàlla kon jaamu yàlla daal dafa doon loo xamante ne dafa ñëw pour yombalal la mbir mi waaye ñëwul pour jëfe lalla mbir mi kon yow mi doon célibataire am bay cuurule nga denc xaalis boo xam ne ren bi déwén sax doo ci am soxla te ngay mu kalaf war na la yow mi nga xamante ne nag borom kër nga am nga soxna am ay doom te leer na la leer yàlla ne dépasse suba gannaaw suba sax danga koy taxale te bés ki wàcc na la mais bëri waa na borom kër yu bëri bu tabaski bi ñëwee mbokk yi danañ ciy sonal seen bopp ba nga xam ne événement bi bu jàllee sax dañ ciy jëlee ay bor loolu lislaam bi santul la ko loolu coono la boo xamante ne yaa ko teg sa bopp mais lislaam tegul la ko ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha amul benn xeetu jaamu yàlla bu la yàlla di teg di la ci nattu wala di la ci fitnaal wala di la ci bundoxatal déedéet lépp lu la teg rek yëg na ne attan nga kon lu la tegil bàyyi ñun luy suñu luy suñu problème mooy léegoo léeg diw jënd na xar man damaa war a jënd xar diw rey na man rus naa ñàkk a loolu dafa doon loo xamante ne fekk ñu ngi ci duñ am jàmm kon da ngay test sa bopp natt sa bopp xool sa bopp ba xam yow attan nga ko wala attuna ko soo ko attanee rek fa lillahi alhamdu mën nga def boo ko attuna bàyyil ndax sunna la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tabaski dafa jot mu rey ñaari gàtt benn bi bu mu ko reyee yéene ko boppam yéene ko njabootam waa këram beneen bi mu rey ko yéene ko mbooleem ummaam bi ki nga xam ne loxoom jotul gannaawam ba mën a tabaski kon yow mi nga xamante ne événement bi ñëw na mu leer la ne amoo kartan pour matale lii di sunna tabaski bi te am nga yéene bi bàyyil wàcc na la yenent bi yëbbaaleel na la géew te sax li ca doy waar mooy ñetti fan la premier jour bi su fekkente ne raw na la nga dàkk deuxième bi deuxième bi bu la rawee nga dàkk troisième bi troisième bi bu la rawee nag nga lem say bagage ba déwén ak jàmm waaye ñetti bis yooyu yëpp mu la tànnaloo ne la nga dàkk ko sa day fekk nga am loo yaakaar par exemple am nga xaalis am na fu mu tëdd mënoo goo caa jot mais leer na la ne tey ji la gaa yi war a tabaski te suba da nga jot ci xaalis bi mu ne la suba boo ko jotee yow tabaski parce que mën nga ko suba sa jotoo ko mu ne la gannaaw suba sa na nga tabaski gannaaw suba sa nag bu xasee romb ñetti fan la jeex na da ngay sa bagage ba déwén ak jàmm kon su ko defee doonu loo xamante ne dafa ñëw pour teg nit ñi coono yow mi koy def bëgguñ nga puukariwu si ndax jaamu yàlla mbooleem xeetu jaamu yàlla laa wax booy def di ci yëg sa bopp bàyyil xel ne amee too ca yàlla ndax lépp looy def bëgg nit ñi gis la ca yàlla yàlla génnee na ca loxoom dalay bàyyeek nit ñi rek kon yow mi kay def defal ci sa xel ak sa xol nga am paspas bu dëgër ne yàlla rek a tax ma koy def doo ci ut benn nit puukare doo ci ut benn gisal waaye di nga mam jënd xar muy jar quatre cent mille xar muy jar cinq cent mille di nga mam yeew ko ci bundu kër gi yeewa ko ay chaîne fuddan ko ba mu rafet ah sang ba mu baax di weer di weeri ku romb gis xaru bay diw ba xaru bay diw ba am na ci ñoo xam ne loolu lañ ciy bëgg mais sàkk wuñ ci am ngër ngërmandik yàlla kon loolu baaxut tey boo xoolee xaru 400000 500000 ba jëm kaw nga koy jënd mu leer la sa biir kër waxuma sax si koñ bi mais sa biir kër am na ci ku yor soxla boo xamante ne sax matul 25000 kon am na ci loo xamante ne boo ko xoolee ba xool day dugg ci buntu ngista te ko yëpp koo xam ne yaa ngi def xeetu jàmm yàlla di ci ngistal rek yàlla génne na ca loxo su ko defee dafa am ngëneel lu mag loo xam ne am na ci yenent bi sallallahu alayhi wa wax ko mu ni euh, ma amila ibnu aadama yowma nahri amalan ahabu ilallahi min iraqati don bisu tabaski daal yàlla nee na amul benn jaam bu ma jëfal jëf gi ma gën a bëgg nga tuural ma deret bisu tabaski ba jotee mbooleem lu jaam bi bëgg jëfal yàlla rek gannaaw tuur deret yàlla nee na safuma kon yow mi tuur deret bi nag na am qualité ak ay melo yoo xam ne mele nga mooy nga fexe ba jiboog sa borom nga fexe ba li sa borom digle nga tënk ca sa bopp donte ne matul mataloo ko à cent pour cent waaye nga fexe ba li la yàlla tere buñ la ca dégg buñ la ca gis kon nii boo ko melee boo tëree sa xar di rey yow mi kat yàlla bàyyil na la boppam xel su ko defee bokk na ca it euh, moom tëbaski doon na loo xam ne keroog yowmal xiyaam bi jën ya yiw la ñeel la weya yiw la ñeel la karaw ga sax yiw la boo xam ne yow dalay ñeel yow mi yow mi ka yow mi kon su ko defee yenent bi sax nee na yow mi tër xar mi di ko rey njëkk deret bi di tas ci ci ci fi nga gasal pax mi njëkk deret di fa tuur di fa tuuru jël nañ yiw ba bay yéegal ko ci sa ci sa balance yiw yi su ko defee yi doonul lu ndaw mbokk yi doonul lu tuuti euh, doonu loo xamante ne lu ñuy sàgganee la lu ñu war a bàyyi xel la ñun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee daal euh, dëgg dëgg dëgg dëgg mbir bi daal mooy sàkkoo jégalu yàlla mooy sàkkoo jégulu yàlla ndax yàlla wax yenente bi ne ko fa salli li rabbika xar doxalal nga julli gannaaw bi nga jullee ba pare nga loj sa gàtt bi nga jégaloo ma muy bisu tabaski lañ wax ne natt bu rey dal na yent yàlla muhammad muy doomam ibrahim su ko defee yàlla dogal bu mu julli jee ba ñëw mu daw tafu ko mu jël teg ci dënn bi yàlla dogal mu sedd muy jooy nag jooy yu métti muy jooyu xol yéefee yëpp dajaloo saay-saay yu mag yi ne ko sa yàlla ji bëggul la ndax bu la bëggoon seen bisu feet bu màgg bi du jël sa doom bi yenente bi am naqaru xol lool waaye yàlla nag ne ko fa salli li rabbika wan xaq inna saaneka huwal abtar ñoom ñii di la xas di la ëyibal di la sikkal ñoom ñooy ñu manqué ñi waaye yow kuy am ku mat nga te ku am yàlla gu mat nga kon jullil nga loj sa gàtt gi nga jégeloo ko yàlla kon bis la boo xamante ne daal bisu sàkkoo jégalu yàlla la moo doon it bis boo xamante ne bëgguñu nit ki di ci def bàkkaar wala di ci xelaat sax mooy yàlla ndax bis la boo xam ne loo ci def ci xeetu bàkkaar dañ koy fulandi kon bis la bu màgg boo xam ne lu bëgg mooy nga def ci loo xam ne dana bégloo borom bis la boo xam ne bëgg nañ képp kuy borom kër nga fexe bégal sa njaboot fecc sa kanam gi ngir sa njaboot bégee ci yow nga fexe it kontaanloo sa njaboot ci lu taaru lu ngi leen mën a defal moo xam yére la moo xam lu mën a doon rek mais fexeel bis ba daal nga bégal sa njaboot fexe kontaan loo leen fexe taaralal leen ci li la yàlla may ci wërsëg te ñoom ñu xacc kon su ko defee bis ba loolu la laaj bis la boo xamante ne it boo koy def dundal nga sunna yeneent bi waaye dundal nga sunna yi dundal nga yoonu maam Ibrahim bis la boo xam ne boo ko defee dundal nga sunna yenent bi mais dekkil nga dundal nga rafetal nga yoonu maam Ibrahim ndax ibrahim boobu ndeyéneen moom la yàlla digaloon mu rey doomam ismail kon su ko defee yenent bi bu koy def da koy def ngir dundal dekkil yoonu maam ibrahim ndax yàlla moo ne yenent bi fexe la topp sa yoonu maam ibrahim kon dafa am ci yoo xamante ne ba tey muy roogaat dundal yoonu ñuñ lu ñu baax ñu yiw ñu yaakaaru ñuñ la bokk na mi nga xam ne yaa ngi nar a sa gàtt pour tabaski bëgg nañ ñeenti façon gàtt yi bu mu doon gàtt yi ngay tëbaski bu ca jiitu mooy al awra u bayyinun awruha wal maridatun bayyinu maraduha wal arja u bayyinun dilaaha wal kasiru allati la tanqa yaani la naqa fiya ay la muqa fi idamiha ñeenti xeetu gàtt yi daal bëgg nañ yow miy tëbaski nga fexe leen a bu ca jiitu mooy bi nga xam ne dafay soox ba ak soo xam leer mën nañ ko tuddee gàtt gu lafañ wala gàtt goo xam ne daal tànk yi benn am na ci problème ba mu ngi soox boobu yow mi nar a tabaski nee nañ la nga maytu ko bàyyi ko xel bu ko tabaski ndax payooram mën naa wàññeeku ba fa sësee nag mën nga ko tabaski waaye bu amee lu ko gën nag bëgg nañ nga tànn ko ñaareel ba mooy bi feebar feebar bu mën a doon nag wëttandikuloo nañ la nga bàyyi gàtt bi nga xam ne dafa feebar nga xool beneen bi wér kon bi feebar boo ko jëndee duñ la fay yow amoo tabaski ñetteel ba bi nga xamante ne lenn ci béjjën ya lu ëpp ci béjjën ba dafa dëñ wala boog béjjën ba dëñ na sax mais dëñ bu bees la day nàcc kooku duñ ko fay wala boog xar mi geen ga dafa dagg par exemple ñu ne geen gi ñetti xaaj la mais benn xaaj moom moo dem wucc fi ñaari xaaj yi kooku baax na mais ñaari xaaj yi bu demee wucc fi benn xaaj bi kooku mënul tabaski kon su ko defee yooyu lu ñuy bay xel bu ca topp mooy bi nga xam ne dafa ràgg lool ba jéggi dayoo ba nga xam ne suux ya sax amut ci yaram bi kooku bëgguñ ko bëgguñ ko nga tëbaskeeku kon ñeenti xeetu gàtt yii la ñuy wax ñu ni benn boo ci tëbaskee rek bëgguñu ko duñ la fay yow mi namba tëbaski du yere bi bu teeroo bëgguñu mukk ngay sang walla ngay dagg karaw wala ngay dagg we ndax yooyu yëpp benn bu ci nekk payoor la ñeen la te bëgguñ sa payoor di wàññeeku tax yenent bi jàngal ñu ne bu bu tollee ci weer wi rek mu jege si rek amatoo droit sang ko sax far ndax mënoo sang xar ba pare te nga ne karaw du ruus kon karaw foog mu ruus bëgguñ nga dagg béjjën bëgguñ nga dagg ay we ndax loolu di wàññee ko ci gàtt bi day wàññi sa yool ak sa tiyaab te yàlla waxtu wu nekk dafa bëggal jullit bi ak tiyaabum di yokk su ko defee lii ñu bàyyi ko xel bis ba it bu jotee bëgg nañ nga sol sa yére yi gën a taaru ci bis yére yi nga julli ji gannaaw bi ngay julli ji bëgg nañ nga woor woor goo xamante ne wooru gàttan lu la xaw ma noonu la ko noonu la ko mag ñi di tuddee mooy woor goo xam ne danga koy wooral nga julli ji boo ñëwee boo reyee sa gàtt loolu ñu la cay lakkal nga mën a barkeeloo ci loolu ngir doo ko loolu bokk na ci sunnay bis bi bokk na ca it boo reyee sa gàtt ba pare gàtt bi nga dagg ko nga xaaj ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi nga dundee ko yow ak njaboot gi ngeen lekk ko ci bis bi xaaj bu ñaareel bi nga saraxe ko xaaj bu ñetteel bi nga denc su ko defee nii lañ ko bëggee nga defee ko ci bis bi bëgg nañu yow mii boroom kër gi nga rayal sa bopp xar mi su fekkente ne mën na ne waaye am na ci ñoo xamante ne dañoo am xol bu oyof am na ci ñoo xam ne mënuñoo sax rey ganaar waxuma laa xar bi maanaam ñàkkuñu ko mën mais dañ koy tële seen xol moo ko dul attan seen xol ko dul attan kon su ko defee su fekkente ne yàlla daf la may xol bu oyof ba nga xam ne mënoo rendil sa bopp nga ut ku la rendil kookee di la rendil nag bëgg nañ buy rendi nga jël sa loxo bi yow teg ko ci teg ko ci mbaggam ne bismillah dugal sa yéene bëgg nañ li sopp nañ li ci bis su fekkente ne it bis ba dogal na mënuloo feesal sa bopp da ngay ut ku la feesal ki lay feesal bu ñëwee fees ba pare bëgguñ nga dind ci ndawal yi di ko ko fayee kooku bëgguñu ko der bi bëgguñu nga jaay ko der bi bëgguñu nga jaay ko te ndawal li doo ci jël di ci fayee la feesal mais su fekkente ne waa ji feesal na la ba pare yow nga am sa mbaaxug bopp dind ci ndawal li daal di koy jox ne ko lii man maa la ko may kooku dagan na yoonu kenn ne ko ci parce que sarax la rek booy génne waaye bëgguñu mukk nga jël ko yéene ci li nga génnee ci ndawal li pour fayee ko ko moom mu la bëggee wuñ ko noonu kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax jaamu la jaamu yàlla la boo xamante ne ñëwul pour sonal ñu waaye dafa ñëw pour jàppandal ñu pour yombalal bi maanaam benn famille lëmb benn xar mën na leen a yóbbaale par exemple bu ñu waxee benn kër ñu ne kër gi nangami boroom kër a ngi fi waaye ñoom ñëpp par exemple seen waajur a ngi fi seen waajur moo leen daan yóbbaale mën na leen a ba tey benn xar mën na leen yóbbaale ñoom ñëpp su fekkente ne doom ji moo amit it baay ji amoon moom mën na leen a waaye daganul it yéen ñi bokk kër gi kenn loxoom jotul gannaawam pour ngeen tëbaski ngeen dajale cotiser pour tëbaski déedéet loolu dagun bëgguñu ko soppuñu ko tëbaski daal da ngay mën def tële bàyyi waaye bëgguñu mukk ngeen koy dajaleel di ko cotiser déedéet mën na nekk na ci benn côté par exemple waajur wi nekk fi ak njaboot gi njaboot gi ku nekk am na sa tëbaski mais waajur wi amagul mais am ci doom yi kenn ku am idée ne bu paa bi war na mën a am gàtt mu ne man de génne naa ci sama poste vingt-cinq diw yow mi génneel vingt cinq mille kay génneel nangam kay génneel nangam ñu dajale ko sañ nañ ko jébal paa bi paa bi jënd ci tabaski mu tabaski loolu dagan na mais bu dul loolu ñoom yi neen ñu dajale pour jënd xar pour tabaski déedéet bëggee wuñ ko noonu te rafetlu wuñ ko noonu kon su ko defee doon na loo xamante ne daal ci gàttal tënk encore une fois doon loo xam ne dafa ñëw pour fitnaal xeet bi waaye dafa ñëw pour jàppandal leen képp ku ko mën daal defal boo ko mënul bàyyi war na ko góor war na ko jigéen war na mag war na ndaw ni muy waree nag mooy nga am loo xam ne dencu na reen ba déwén amoo ci soxla kooku war na wéer na waaye ki mu war te wéeru la nag mooy ki nga xam ne am na dara mais lim am am na yeneen soxla yu gën a doon per lu gën a doon farata am nga xar moo xamante ne par exemple wala boog am nga njege xar cent cinquante mille ba deux cent mille mu leer la ne yow mii xaru tabaski war na la mais am na facture courant bu lay xar am na facture ndox mu lay xar location mu ngi lay xaar kon yow da ngay def lii nii mooy farata nga bay xar mi loolu la lislaam sat ndax xar mi bu weesoo kat lii du wees te li waxtu wu nekk weer wu ne dalay war te lee at ba at la lay war kon su ko defee am na ci loo xam ne bu mu la yàqal sa dund am na ci ñoo xam ne ci xeetu yent yàlla Muhammad bu tabaski bi weesoo dañuy def seen téléphone mode avion wala boog dañuy tëju di làqatu wala ku leen woo du leen duñ duñ ko jël parce mooy yére dañ koo leb xar dañ koo leb ndugg sax dañ koo leb am na ci loo xam ne coono la boo xam ne yàlla tegul la kon li nga mën ngay def li nga mënul bàyyi boo demee ba yëg ne mënoo bàyyil mbokk mi buru sa dem jënd sax ndawal ci marché ba togg ko bég bégal bégal ci sa bopp bégal ci sa njaboot waaye am na ci loo xam ne boo ko dugg boo ci duggee rek fitnaal sa bopp bokk na ci it borom kër yu bari danger bu ñu nekk di ko def te xamuñu ci dara mooy tabaski jot nga dem jënd xaru 200000 ñëw ne soxna si sa maa ngi nii soxna si moo am xaru tabaski mais yow amoo xaru tabaski ñu bëri ci borom kër yi bàyyiwuñu xel loolu nee ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax jënd xar am ñàkk fulla wala ñàkk fay da ñëw ne soxna si sa xar mee ngi noonu yàlla bul am nag ñaari jabar ba ñett ku nekk nga yeewal ko benn yow moom toog di xar yàlla ñoom daal am nañ tabaski doo ñoom moom am nañ tabaski bu yàlla nangu waaye yow nag yaa amul dara te xaw ma foo féeti kon su ko defee lii nañ koy bàyyi xel bu yàlla defee dogalee ngay kilifa jiitu boo jëndee yow bale leen ñoom géew mais ñoom boo leen jëndalee bàyyi sa bopp koy tabaski kon su ko defee ñu bàyyi loolu xel tabaski daal mbokk yi ñu ngi ci ñaanal ñëpp jàmm di ci ñaanal ñëpp sutura di ñaanal ñëpp tawféex képp kuy boroom kër rek yàlla jàppandal ci yow tabaski mu yomb la dara bañ la jëfee yàlla nañ ko fekkee ak jàmm kenn bañ a manqué kenn bañ a wopp bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu te yàlla ko yàlla gërëm te yàlla bu mu doon suñ bu jëkk tabaski ñi dëddu euh, yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen xaar leen aljana ñi fi des yàlla defal leen sutura ak tawfiq euh, ñoddi seen fan dolli seen sutura bi jaay sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii lañ doon tëgg ci kàddu di wax ni in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu